Baye Faye lañ koy woowee mooy sama caat ay ñaar fukki at yooyu nag barki démb rek la déposé carte d'identité na sax dama préparé woon anniversaire u magam bu gaañu woon fii ma war koo def samedi léegi ci guddi gi bu ma demee jëli ji ay bagaas ak yooyu ba mu des basang yi ma ne ñëwal nga jàppale ma basang yi ndax dafa diis te boobu ba léegi comme que damaa wéerul ñëwal yóbbul ma basang yi bi mu wàccee génn ma toog tuuti lu am ay fukki minute ak juróom am benn xale dellu siwaat ci biir kër gi war woow magam ni ko kaay kooku di génn mu ne ko solal dàll beneen mag bi tëb topp ci mu ne ko sol leen daal bi ñu solee daal ba wàcc escalier yi ma dégg mu naan leen dañoo agressé Baye Faye man ti ma tëb daw topp li ay vingt trois heures yooyu ndax ci ngoon gi dix heures ak yooyu mu doon rondé bagage ak bagage ma tëb topp leen lu xew ñu ne ma nee nañu dañoo agressé Baye Faye ma leen kon Baye Faye dee na Baye Faye kay buñ ko agressé day dee ndax moom du dellu ginnaaw après nag ci la riir mi commencé na xaw ma woon lu xew ndekete benn moroomam moo ko def da koo jam moroom mi daal xam naa ne gis nañ ni ko ak moom ñu lëngante di dem ñu taseeg ñoom ñëpp dañ gis ñoom ñaar ñu lëngoo di dem léegi nag bi mu lëngoog moom dem bu ñu demee ba foofu xam naa ca la xaw ma dañoo jote woon xaw ma nu mu demee daal waaye xam naa ni dégg naa ni dafa moom moo ko dóor sama doom ji fayu mu xool xam ni kii moo ko ëtt ëpp kàttan peut-être mm-hmm. fekk moom préparé woon na boppam da koo jam mu ko jamee après sama doom di daw di ñëw pour ñëw si ci kër gi mu daw xam naa jam-jam bi metti na mu daw ba yàgg mu daanu peddal fa la tëdd après la ko waa koñ bi yëgi dégg naa tamit muy wax ne bi mu daanoo ki njëkk yegg si ci moom daf ko ne yóbbu ma ci sama yaay lu bëree bëree bëri sama caat la magam yi nekkuñu fi moo fi nekk papaam ji moo fi nekk gis ko daf feebar bu yàgg ba tey amul doole mënul daal tubayu nag sol tubayam jonn taxaw taxaw ci kër gi ba bërki dee mboo njaay ci tëbaski ay magam yeew nañu waaye dañu dama yeewal sama papa tëbaski yeewal ko tëbaski man ko wàccaat ku yeew sam tëbaski di nga ci teg dépense mu yëkkati ñetti junni jox ma dépense taxaw nag ci kër gi naaw yàlla bu ma jooyulee yàlla ak bakkanam boobu ak magam yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam wallaahi lazi jotewul ak kenn dara foo ree kër gi bu fi nekkoon léegi léegi yéen ñi toog da ngeen di ree bu ñëwee mi ngi baree ki magam mi ngi foo man mii rek sax day bëree man di foog man di reek moom amula kenn xaar ma yàlla foo ree moom la xam atte ko xeex ci koñ jàpp njàmburam bañ na ko ñii ñooy moroomam ñi ngi gis waaye ñu mag ñi lay àndal ñu mag ñi lay bëréer ñu mag ñi lay reer pakai teel a sotti gi mu teel a sotti hmm. loolu laa remercié loolu sama domat, yon, hmm. ah man miri mbiri yoon mënuma kaa lijjanti mbiri yoon yoon moo xam la mu war a def man xam naa ne man ñàkk naa metti na de na fa waaye nag hmm. rek boom nañu sa doom noonu yëgoo tinoo metti na lool de te mu yore woon ginnaaw yàlla moo fi taxawoon xale bu am njëriñ dee na bu baax ci man dee wallaay laa si mu liggéey lu nekk ci sama loxo bi dara eh lii nag naa delluwaat sama bopp si yàlla. si xam dogalu yàlla la. te xam naa bu ñu pour rek nga amul ah mais mu dina ko duma de waaye de dina fa yàgg moom mi nga xam ne ñii ay magam la ñu ñoo bokk bàyyi amul kenn koo xamee ne xamal nga ka caaxaan naa nga xamal ka xaar ma yàlla ku mu jot rek moom la ci yow foo agré liggéey yi ñëw Baye Faye nekkoon nit koo xamee ne moom maa wax ne Baye Faye juddu na fi ci kon bi am ñaar fukki at ku leet parce que démb laa nu mas dégg ne Baye Faye ngay xeex ba nu jàng ko Baye Faye du xeex du xuloo xamul xamu ko sax talu ko boo xam ne leen dama bëgg a dimbali sama yaay ak sama papa. li talu ma ko. toxul naanul deful la lu tey boppam. kii karay tey. waaye nag da ko doon yedd. naka yow mënoo judd ci koñ bi naka xale koñ bi saa yoo yor sa yamba ak sa sàngara da oo xale ngeen ci entraîné bi. am nga ci koñ bi eh, loolu la ko eenee loolu la ko meree. dogal murai politique léegi léegi bu jógee léegi duñu naan intervention foog ñu may intervention ndax moo fi sës ki dee dee na ba pare kon ñoom ci seen bopp muy jigéen ñi muy xale yu góor dal dañu andak dal te xam ne dogalu yàlla moo ñëw billaahi am na famille te billaahi ku ci taxaw tey di def intervention dañoo dañoo xam ne rek li ma li ma ma war a am. la reyante léegi ñun duñ ci jot ndax man ku yaakaar ma dóor la nga dee ñu hmm. mënatoo sama bopp dara ginnaaw yàlla nag moom la yoroon hmm. waaw. si lañ départ ñu dem fekk nañ ko mu tëdd mënuñoo wax ne fii lañ ko jam ndax nañ ko fekkee ñun fekk nañ mu faatu ndax man maa ko man ak Ibrahima mais man mi nga xam ne yàgg naa fekk comme yëkkati ku dee bu ma ko yëkkatee ak jam-jam ak ni mu méttee tàngoor wi ci nekk nga mën koo yëkkati fekk mu sedd ci laa nekk kii faatu na. exactement jam-jam bi fii la ak ci digg ginnaaw gi ñaari jam-jam daal man ci laa gis man. waaw fii kanam gi fii dañ ko dagg nii dañ ko dagg nii fii mu wàcc. ci diggante bët yi ñuy ñëw benn benn benn nit la benn nit la ndax moom moo ñëw bi mu defee lii moom it moo tiitaat ñëw wax ne carrément man maa ko jam man tàntaam laa man tàntaam la, kii sunu mag la kii sunu yaay ba mu deewee ba léegi moom moo ñu bor ñun moom lañ fi nekkal Baye Faye nag moom xale bu baax la moo yoroon léppam moo nekkoon loxo yaayam mo nekkoon lepp yaayam te ni mu nekkee yaayam non la nekkee waa ko ñoo dëkk ñi affaire bi metti na parce que ñepp lañu laal yamul ci Baye Faye rek waa koñ bi ñepp am lu leen metti mais lo gis lu nekk rek ci biir famille la xaj moko waral li lii yëpp tey mais dañ kay ñaanal yalla rek ta xamni ki tamit yalla dina ko may xolum muñ parce que mom mën naa muñ te jigen ju dal la parce que dafa tegaloo nag daaw la magam gaañu anniversaire bi dañ doon def mo waral ñu jëli bass yi ak 16 bi si la doomam wàccaat liggéey te li mu ngi ko dégg te li tegu ci kawam dafa metti nag kii li mu yanu ay gaynde bu dul woon gaynde day daw man dëj bi ma koy yëgee barki démb ba ñëwuma de li may jooy yëpp xamuñu lu may jooy déegi metti na de mais jooyuma de kii li nekk ci kawam moo metti li mu yanu moo diis yan bi moo diis mais yàlla moo ko waaye yàlla dina ko ko oyofalal yàlla yan bi oyof li mu gàddu si ginnaawam gi yàlla na ginnaawam sedd guy parce que mu yenu moo diis yenuwul benn famille li mu yenu dafa bëri te bu problème bi jàllee beneen ñëw bii jàll beneen ñëw